ni euh, tamit euh, daanaka euh, à chaque bu ñu amee ay ay jafe-jafe wala bu homme politique amee ay jafe-jafe ak wàllum justice ci la ñuy gis ne que vraiment dañ leen di attaqué bu baax a baax te fi ñu leen di attaqué ñoom ñi ñuy ñiy attaqué wala ñi ñuy indi ci justice bi ñoom ñooy def li tax ñu indi leen fa. waaw ah, xam nga problème justice moom tàmbalewul tey. Hmm. daan nga ko dégg ci jamono yi maître Wade liberté des magistrats n'est-ce hmm. liberté de la justice liberté de la justice loolu du askan bi rek ñoo koy wax ñoom seen biir plusieurs fois dégg nga magistrat tenir de tel discours maanaam koo xam ne ci biir la nekkoon gis nga fi le cas du juge Dème dégg nga fi les propos du juge Téliko donc est-ce que nit ñi ñoo leen ŋaññ est-ce que maanaam le problème vient de l'extérieur wala est-ce que le problème vient de l'intérieur y a un problème de la justice mmh. léegi comment régler ce problème foofu la ñu war a dox jëm pas réglé le, le problème de la justice. non moom y' a problème de la justice. mais c'est-à-dire justice am problème ah justice bi justice bi nekk États-Unis justice bi nekk France justice yëpp yëpp. daanaka ah, am benn justice boo xam si ni. waaw xam na bu ñu demee mais des fois bu ñu demee ba justice bi. oui. ñoom nee nañ saa yu homme politique amee problème. Mm. amee jafe-jafe ak justice ci lañ leen. ñu dugal leen ci côté politique est-ce justice moo war xool ni muy gérer dossier homme politique yi. comme ça dañuy que du des fois les dossiers non ñoom ñoo am aperçu boobu. est-ce que du ñoom ñoo war a xool ni ñuy àttee dossier yenn om politique yi. comment koy xoolee comme. waaw parce que du moment que bu citoyen ordinaire ñëwee moom du am problème mais si c'est un homme politique day am problème mooy ñoom war nañ xool ni ñuy gérer dossier homme politique yi jeex na loolu kese la. nit ki xoolal munoo. est-ce que dossier est-ce que dafa am. ay dossier c'est-à-dire dossier yi am mooy c'est des dossiers de justice moom moo am nga am sa dossier. Mhm. dossier dossier la quoi dañ ko war comme ni ñuy traité dossier eh, citoyen lambda bi mais est dañu war a am tey ñaari citoyen kii homme politique la dañ ko war a. kii moo tax man la moo tax man la moo tax dossier hmm. citoyen moo tax man la moo tax man la ñoom dañ koy jaarale fi ñuy jaarale ñëpp. moo tax man la ñoom ñoo war a xoolaat est-ce que homme politique bi ñu ngi koy jox droit bi ñu jox. la sénégalais lambda. lii mooy laaj xam nga Mahfouz <laughs> nii nga may xoolee. waaw mënoo ma ko forcer. waaye mën ngaa fexe jëf ba man ma lay xoole mm-hmm. ni nga bëgg moo xoolee la lii kese la. tey ngeen xoolee ma nii kenn mënu ko. Mm-hmm. da ngay wër di xeex ak nit ñi rek. Mm-hmm. waaye mën ngaa jëf-jëf joo xam ne dana tax man ma am. sa regard changé. voilà sama regard changé ci yow lii kese la. ni leen a xoolee neexu leen nañ fexe ni ñu leen a xoolee soppeeku lii kese la. d'accord jarul xeex jarul xuloo fi ñuy jeexale mooy euh, le Sénégal bi nga xamante si nii tey bëgg na intégrer euh, les BRICS donc muy euh, pays émergents yi ba ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall <laughs> daal nañu koy invité fële ci. waaw fële ci nga xamante ni moom moo di Afrique du Sud. loolu man recommandé suba suba suba le bi war a war a war a démarrer suba ci ci talaata ji est-ce que jàpp nga ni Sénégal tey c'est un pays émergent. réew mi fii oui ba bëgg a bokk ci <laughs> ci kuréel boobu. maa bëgg yëngal rek. nee na yëngal damay laaj rek ba xam est-ce que réellement Sénégal mën nañ jàpp ni c'est ñun ñi nga xam ne on a perdu. ñun ñi yow tamit. Ah, man man su may wax moom wax dëgg yàlla man nag wax dëgg xam nga nag man moom damay dama koy natt ci sama bopp balaa maa wàlli wuti feneen. Mhm. dama ñun ñii Sénégal ñun ñi nga xam ne perdre nañ quatre-vingts pour cent ci suñu riz de la vallée bi nga xam ne dañ koo tabax te te agriculteurs yi di ko jooy di ko kaas mhm. ñun ñi nga xam ne njëgu soble fu mu nekk nii daa yokk ba zose amatul ci réew mi. Mm. ñun ñi nga xam ne suñu dund dafa cher ba suñu panier de la ménagère xamuñu fu ñu koy lijjantee. ñun ñoo émergent ñun ñi nga xam ne suñu ay doom dañoo jël dañoo jël bato bi ba suñuy ndaw jeex nañu ci géej gi jeex nañu tàkk ci géej gi ñun ñoo émergent ñun ñi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe bu ñu nekkee suñu biir kër woyofal bi duñu bëgg a rey mm. ñu tuddee ko woyofal te diisal lañu ko war a tuddee mm. kan ñoo émergent ñun ñun ñi nga xam ne bu taw beeg mbënd mi jotee du ñu am ah déet dama lay ah waa baax kon ma noppi parce que fu mu ne nii mën naa ko continuer nii man ba ba n'importe quelle danga ko laaj émergence mu lay limal luy facteurs yi leeral du ñu pays émergent xam nga ban émergence la wax loolu mooy ban émergence dis-moi Sénégal nekkul ci raay yi de ah dëkk bi daal metti na Mahfous boo bëggee dégg dëkk bu ci nekkee ñun yëguñ ko askan bu ci nekkee ci bi askan moom yëgu lii moom leer <laughs> d'accord ah. yow may ñëw ci yow. xam naa ne yàkkamti nga. ah da bëgg ma yeggale. yàkkamti nga jël parole bi yow tamit. mën naa ah, leen fii ba su ngeen ci affaire te duñ ko ni sax dafa neex parce que man su ma ne am njaay Ousmane yeggali rek day neex. Ah, mën nañu ko continuer nii la list elle est longue mën naa la duggal ci wàllu wér-gu-yaram mën naa la duggal ci wàllu éducation mën naa la duggal ci wàllu enseignement xam nga la vérité mooy on ne parle que de oui bien sûr jéego 44 000 milliards bi ñu fi tooyee léegi ba am nay jéego on ne peut des nihilistes parce que nit mënul nekk ci pouvoir nekk ci nguur nekk président di doxal vraiment dëgg-dëgg pendant des années ñu ne liggéeyo fi dara il y a eu des points euh, yoo xamante ne dëgg-dëgg euh, teg na ko allons dans le sens de l'émergence je suis d'accord mm. le, terre est là mm. donte jam ñaajo la yam c'est bien euh, BRT bi ñu ngi koy il y a il y sur le plan infrastructurel am na yu bëri yuñ ci liggéey mais mais sauf que xam en fait nous ce n'est pas man parfois dama naan lii de volonté la wala lan moo xew exactement pourquoi ñun ñu problème mu non appliquer loo on nous a parlé ici non man xaw man xaw ma ko mën a tuddee milliards am ko après. oui mais en même temps daanaka yëguñu ko ñun yëguñu ko yëguñu ko loolu actuellement quoi tamit. a y' a y' a les y' a les rapports qui sont passés ici. il y' a hmm. aussi euh, la situation du Covid qu'on a vécu ce scandale-là dont on ne parle même plus comme si ce n'est plus d'actualité alors que boobu ba tey ñun ñu ngi ŋang di xool ba xam enquête bi fan la mujjee donc vraiment dëgg-dëgg dafa xam loo xamante ne pour man réew ci loolu la war a mën a tënku ñu ne ñun kat ñu ni ñu ngi dem vers l'émergence on tend vers l'émergence mhm. mais on n'y est pas encore Marfous la lu la route elle est encore très longue on a du chemin hein? on a du frère mhm. parce que vraiment li ñu war a njëkk lijjanti mooy aujourd'hui la la survie des Sénégalais mhm. la situation sociale la situation sanitaire le côté la euh, li nga xamante ne moom mooy côté éducation mais malheureusement. Mhm.